jaay ya jërë ngeen jëf conseil supérieur de la magistrature juge Amidou Dème ma ca bokkoon te démissionné dem yéene kay yi xëy nañu dem ba jeex ca la ko tax a dem moom juge Ibrahima ami Dème dem dem na yoonam démb la dem ab lettre la bind di ca leeral li ko tax a démissionné lettre bu tàng jër sax nee na magistrature bu Sénégal aw tur rekk ci nekk xottu kese la moo tax mu démissionné ci magistrature boo xam ne ba mu démissionné yàgg na magistrature bu réewum Sénégal amatul dayo amatul gëdd amul fulla amul fayda laas yéene kay nañu juge Dème dem na Ibrahima Amidou Dème jugé na ca conseil la magistrature magistrature li ko tax a buub ay kaakeem ak kalmañangaanam dem yoonam journal bi nañu bokk na ci biccoog mbaaloog bëjoogu doxoon diggam ak Lansana Diabé procureur bu Ndakaaru lépp tukkee ci dossier bu soxal benn terroriste ci xët mu njëkku Les Échos juge Ibrahima Amidou Dem ak i kàddoom nee na fa man maa démissionné ci magistrature boo xam ne ba mu démissionné yàgg na mu teg ci ne bu weesoo yoon di justice ak doxinu bon wi muy doxee ci réew mi askanu Sénégal ci ba dee daali ñi jiite réew mi mu ne ñu ni ñu yore réew mi moo di folklore maanaam bumba mbaay ak gundaandaat yàq yaafus ak clientélisme ci leetar bu mu bindit ñaawlu na fa ni kilifay réew mi nekkee ci réew mi mu di ay wax waxeet ay wor ak i kàcc Le Quotidien jël waxam ja ca leetar ba tuddee ko réquisitoire magistral nee na gouvernance sobre et vertueuse gi ñu fi diggee woon safaan wala ñu gis ci réew mi loolee lépp waxi magistrat ami du dem la beneenub magistrat bu dem te dootu dellu si bu mukk moo di meerub ndakaaru ba woon di Mamadou Diop direct info xëy ñu ko tàggee Mamadou Diop génn na àdduna faatu na démb maire bu Dakar di ma ca kaso ba moo ñàkk na xarit dëgg Abdoul Mbaye nañu senegal ci boppam moo ñàkk ku rëy ki ko wuutu woon ci maire bu Ndakaaru di Pape Diop di rafetlu liggéey bu am solo bi mu dëkkee def moom Mamadou Diop ngir jëmale Ndakaaru kanam direct info nañu waaye ñoom li leen jaaxal moo di Mamadou Diop faatu na te ba fi mu nekk nii kenn déggul Ousmane Tanor Dieng mu wax ci te ku xam Mamadou Diop xam ne socialiste dëgg la woon njiitu réew mi di Macky Sall ak ñi ko wërit kenn déggu leen ci l Quotidien nañu ñàkk na meeram anki dina kay nañu soldaaru état dëgg la mission jeex réew mi Quotidien gis ne kàngam kàng fóore pire ci wàllu décentralisation moo dem bëccëgu démb gi di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars source a nañu du bëccëg bu neex ci magistrat yi ndax SUTSDEM démissionné na ci conseil supérieur de la magistrature beneen magistrat di Mamadou Diop moom i dem na ñu dem ca COSEC xooli la fa am yëral xët bu njëkk source a COSEC di conseil sénégalais des chargeurs yàq ga fa nekk jéggi na dayoo ñeen fukki millions yéenekaay bi nee nañu moom la ñu organisation patronale Le Cosec journal bi nañu ab loxom gaaw na ci joxe gaaw goo xam ne maara day taali foire bañ doon organiser ca Kaolack rek téeméeri million la yëkkati subventionné ko organisateurs yi fajkat yi doon gereew la yéene kaay nee nañu situation ba décanté wu na premier ministre bu Sénégal di Mahammed Boun Abdallah Dionne moo réglé coow li démb la waxtaan ak gereewkat yi fay coow li soleil national nañu juróom-ñaari tawat yi fajkat yi bëggoon gouvernement bi fajal bu ñu fàttali ko keroog seen bu toll ci juróom ñaar at ci rond-point Médina la ñu ko jàppe woon histoire boobee la ci am dëgg-dëgg l'observateur fexe na ba xam ko leeral ñu ko bil journal bi enquête ba ci loxoy sûreté urbaine la mujj ndaw sa dafa lànk ko ne du wax gars yi commissaire Dramé yi naxtaan ko ba ko ci la ñu ne moom ndaw si turu Aysatu Jàllo yu mu doon wax tuddul noonee Aysatu Jàllo turu yaayam la moom ndaw si Ijetu Jàllo la tudd ñaar fukki at ak juróom-benn la am Guinée la cosaanoo ndaw si wérul àndul ak xelam fukki at ak juróom a ngi ñu koy fajee ci hôpital ba ñuy fajee dof ya ca Caaroy am na ñetti doom ñoo nga Guinée Guinée amoon na jëkkër li mu wérul moo tax jëkkër ja bàyyi ko Guinée la dawee bàyyi moo ko fa daan surveiller foofee la dawe ñëw Sénégal journal bi nañu analyse yi ñu def ci moom ndaw si feeñal na ne ñàkk sago ci doom moo waral xale bu mu gis bëgg koo jël yóbbu